روح الوجد بياي هلماني ملكم ملكوت قاتل الأعظم بدوما سيدبا أما رواتي لامدي بيناس باي كن سيدوم بياي نون روح الوجد بيناس جاخال nga Ibrahima Diouf kanga donnu sañuñ koy wax barama dama dir mi ñas aya gën ci doom rawul wu jot bi yay helimaani mulkoog malakut duratul bayda bi dooma sidi barama dama dir mi ñas aya gën ci doom jega fees ka taxuta wat fàllare julli ngeen ba dee ku xamul yàlla lab ci waylun gaañi baar xama futuhati lahmadi bi ñas baaya gën julli kori taga sam gaddaay jas bu nay gaay déggee naa ca démb mooy sidi baarama futuhati lahmadi bi def kuré kuré rin huuti saam ñu ngay tertu ay nul xollom si baar amma futuhati rahmati bi ñas bàyyi kenn ci doom bilay ñun na ñëw soran si baar ay nul ku lay yaakaar balay dellu xaybu di baar amma futuhati rahmati bi bilay ñun nga ñëwal soran si sax maa gën a hiisaan xagguma si xaas manga janoog laskandar yaa gaañe baar amma to ati lamadi bi ñas baye gan ci doom bilay ñun nga ñoom sonan silima baay ni lolom hige kow raay ba ndaw lu neexo xool sa turu jakk wa ma jox hal sidi baar amma to ati lamadi bi ñas baye gan ci doom bilay ñun nga ñool sonan silima sa turu njakk wañ la doon hooye bokku tak baram lolo halak fu dey ham yi weddi baar amma to ati lamadi bi ñas baye gan ci doom bilay Osman janganan nga ñëwal soo daan julli fardul jami hobi ñewna modi bar amma wato hati amali bi ñas baye gam ci doom ilaay ñun nga ñëwal sodan daan sibaama ba jemi dama kontaan ba janoog pey ba alamul qaybu tax ma hem sidi bar amma wato hati amali bi ñas baye gam ci doom ilaay ñun nga ñëwal sodan daan sibaama insaanu kaamil ba jokk bar taxaw jublu penku mu ngay sowel mulkum malakut gañi barama woto hati lamadi bi ñas baye gën ci doom bilay ñun nga ñëwal sodan ba salmale bare taxaw jëmam jaama tijil malakut sidi barama woto hati lamadi bi ñas baye gën ci doom bilay ñun nga ñëwal sodan siribam badru usman banga yor téeréem ba sahaba ya teew mu ngay xutba malo la la gañi baar xamma lama di bi ñas haye ci doom ilaay ñun nga ñëwal sooraan si barama badru samaan bi ñas leeral nga di bi ñas haye ci doom ilaay ñun nga ñëwal sooraan sidi barama suma xaalab xatam giseen naa ca karaama yu foor alamul qaybu tax na ma hem sidi barama ko to lama di biñas ay gan ci doom bilay ñun nga ñewal soran sidi barama barama de jemi orlo se famul ko la la montor bu dox yi ak ko may cien sidi barama ko to lama di biñas ay gan ci doom bilay ñun nga ñewal soran sidi barama jemi barama ki nankala ci bit batam non gaay weddi la da may war sidi barama ko to lama di biñas ay gan ci doom bilay ñun nga ñewal soraan sini am na ceen gu sax ci xoli jam ñi jar ci de nëb kut bu montor ba koy doxal mo di sidi baaraama kutuwaati ramadi bi ñas baye gën ci doom lay ñu nga ñool soraan sidi baaraama montagne bi mag ba ca tundum fa réewi malasia ku fa taxaw xamne do ma sidi baaraama kutuwaati ramadi bi ñas baye gën ci doom lay ñu nga ñool soraan sidi ma tankon ding ba ku fa taxaw xamne baye du ma tankon ding ja doyna na man sidi barama ma foto aji di bi ñas baye gën ci doom bilay ñun nga ñëwal soran siri barama barabu yata jenn nañ jëfal dun ba ndax ñu fatar rab ya ku fa taxaw xam do ma siri barama foto aji lamadi bi ñas baye gën ci doom bilay ñun nga ñëwal soran siri barama ba noonu ya dajel dal di jëfal dun ba jëlan wa tatar tanku nding ja doy na keman siri barama foto aji lamadi bi ñas baye gën ci doom bilay ñun nga ñëwal soran siri barama ba mbir ma yëngoo dal di sudu bat ba garab de bout ninki nanka may la handal gani barama tuati namadi bi ñas bay gën ci doom bilay ñu nga ñewal soral ci barama da ci fan ka kep ku fa dem hemu ci mbiram yalla barama fa garde ke man ci barama tuati namadi bi ñas bay gën ci doom bilay ñu nga ñewal soral ci barama lati yangu ci bi day wo ak sagar samoy fime sirru banga bo malakot gani barama tuati namadi bi ñas bay gën ci doom bilay nga ñëwal soodaan silimaam nasaraan bee gën a rëy xaatir te bëri lu mooy jiix dafay muslu seti wal ka gaañi barahama ndax man di bi ñas baay gën ci doom bilaay ñun nga na daju nekk dexu banjul ñu naan ko monki koot baraam maa fa ceene ay gaay sidi di bi ñas baay gën ci doom bilaay ñun nga ñëwal soodaan silimaam yooyee la gaay dañ may sama ñoom ñoo dee ci kéfer linkar ya daan wedde suñ baay sidi seydi baarama fotoati Ahmad gën ci doom bilaay ñu nga ñool soo daan gunjur jëm bopp jere da ngay ragal yàlla nginaaw wol door doy na kéemaan gaañi baarama fotoati Ahmad Déby gën ci doom bilaay ñu nga bu dus yango dal di tuddu bat ba jëm kaw maw dorong ci sen kaw da sabal gañi barahama ndax ma de bi ñas bay gën ci bi la ñun nga ñëwal so daan si ni barahama hem na karama gu ñu xamalee dóor laa ilalla kiliman kan gor ñu bokkuñ gañi barahama ndax ma de bi ñas bay gën ci bi la ñun nga ñëwal so daan si ni barahama hem na karama gu ñu xamalee dóor laa ilalla kiliman kan gor ñu bokkuñ gañi barahama ndax ma de bi ñas bay gën ci bi bilaay ñun nga ñool sooraan si li barama këli mankan këli góor bari bokkul baram du seen maas yoonu ninki duñ ca loo gaañe bara amma fotowaati laxmat yi bi ñas bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñool sooraan si li barama duñ bolong jejum may sabba ko fa demim yalla baram mang fa garde keman sidi waram ma fatati lama de bi ñas baye gan ci do am bilay ñun nga ga dafay ko pugal no am nga lay soxole gal gañe baram ma fatati lama de bi ñas baye gan ga dafay gasiten yoyele jan ya mooma la yow teg na maqaama barama ko jas bu héegal ko ci ninki nanka gaañi barahama lamar yami ñas baaye gën ci doom bilaay ñun nga ñëwal soodaan sidi barahama boo dajeeg moom ca biir ndox ma ba jonoog place am ba ndox ma dafay mel ni dal dee sidi barahama lamar yami ñas baaye gën ci doom bilaay ñun nga ñëwal soodaan sidi barahama bàyyi jëme saayiram jim ñi feeñu moom lañ ñemee xool baatin baag mu garde malakoot sidi barahama Anas bàyyi gan ci doom bi lay ñu nga ñëwal soo daan si couleur bu cub xasamaan sile ba mu mel bulo sirru banga bo malakoot gaañe barahama foto hati lamadi bi ñas bàyyi gan ci doom bi lay ñu nga ñëwal soo daan si barahama aji ñas ba mooy nekk jolof ca la ko seydu feeñu nan ko yónni nañ ma saalum bàyyi barahama maam aji ñas ba mooy nekk jolof